premier combat baa ngi noonu dox ci diggante Sénégal ak Gambie mbokk yi Gambie yi ñoo def euh, ceinture bleu Sénégal ceinture rouge ñu ngi noonu première compétition bi ndaysaan ñu ngi noonu jàppante ne arbitre bi àtte na buux na ko nee na ci digg géew bi Sénégal Gambie ndaysaan ñu ngi noonu arbitre bi sifflé waat na Sénégal ceinture rouge bleu Gambie ñu ngi noonu ci compétition bi ndaysaan 66 kilo ñu ngi noonu ndaysaan ñu ngi noonu Sénégal ceinture rouge Gambie ceinture bleue xale yaa ngi noonu jàppante nañ ndaysaan mu ngi koy bëgg a bët bañ na ndaysaan avertissement benn bëre ndeysaan xale yaa ngi noonu Moustapha saan na ngay jàppante rouge Sénégal bleu Gambie ñu ngi noonu ci compétition bi ñoom ñaari xale yi ndenga ñeent nañ wër na ko ndomba a sifle wala déet loxo bee simeeku wala déet am na lu muy jàmbat daa mel ni joueur Gambie bi dafa blessé dem na arbitre bi sifflé waat na Sénégal Moussa Gambie ceinture bleue ñu ngi waat noonu premier combat baa noonu ci compétition bi ñu ngi jàpp senegal jàpp na ndeysaan Sénégal jàpp na senegal jàpp na Sénégal jàpp na senegal jàpp na ndeysaan Sénégal jàpp na Sénégal Gambie ndeysaan dañoo mën a bëre nag mbëru Gambien yi dañoo mën a bëre jàpp na ko wër na ko ndomba Sénégal wër na ko ndomba daan na Sénégal daan na Sénégal daan na Sénégal daan na Sénégal daan Sénégal daan na